waxtaan ak jataay yi nga xam ne danañ koy def di ko jëme ci Sëriñ Abdou waaye nag ngir waajale ko màggal gi nga xam ne at mu jot danañ koy def di ci fàttaliku Sëriñ Abdou ay jikkoom ay jëfam ay meloom at mu ne itam mu di nu yebal ci kër kilifa yi nga xam ne amoon nañ ak jokkoo akuk jaxasoo gu am solo ci seen digg ak Sëriñ Abdou ca wayjur ya ak ci doom yi ak ci njaboot gi tey nag nu dikk fii ci kër gu mag kër gu am solo ci yoonu murit waye itam nak am ko ci sen digg ak serigne Abdul Ahad nu and ak serigne Abdul Ahad jaxati mi nga xamne ne jité commission bi ak sëriñ Abdul Ahad so muxtar ak serigne Abdul Ahad Cerno ak Abdul Ahad yi nga xamne ne ngi ci yenen liggey yu ñen jox ñu nekk ci di taxaw nu ñew fi nak tay ci keuruk sihen di keur serigne Mor khadisi si ak serigne malik bassin si di keur gu am solo ci bir yoonu murit waye itam nak di kër gu am alaaxa yu dëgër yu am solo ci seen digg ak serigne Abdou Lahad tàmbale ko ci serigne Malick bassin waye itam nak ci seen doom yooyu nga xam amon nañ ay relation yu am solo ci seen digg ak serigne Abdou Lahad am nasak sax waxtaan wo xam serigne sëriñ Abdou Lahad ko sakko ci serigne bassin si ngir bëgg mu fatali ko serigne Touba serigne malik bassin si domi bopam lako bolel muy serigne Aliou si mu waxtanal serigne Abdou Lahad ba serigne Abdou Lahad daanu ña fa daanu. noonu itam la rogalaatee ba ci sëñ Modou Fati eh, ba ci sëriñ Moustapha si mi nga xam ne xam ngeen ko mu doonoon jànkatu xasida bu mag boo xam ne diggam ak sëñ Abdou Lahad kenn werantewu ko waaye itam la ko jiitu ci sëriñ Modou Khady si moom itam diggam ak sëñ Abdou waaye sëriñ Ahmad Xaasa si mi nga xam ne moom moo nekkoon Touba Belal daan jiite foofa ci jàkk ja dafa jàngale alxuraan kon mën naa ne ci yéen gépp kenn ku ci ne am nga alaaqa bu am solo bu dëgër ci sa digg ak sëñ Abdou Lahad ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ne seen ak taalibe seen xam-xam seen murite seen ak waye tam senuk joxe hadiya ci yoonu murit ken werante wuko fofu nak lañ bëggoon ñew tay nak ngir tank fa jël fa ay durus ci sen digg ak seen blad yo xamne danañ ko mëna ndaw ñi danañ ci jàngé mag ñi itam ci ngir mu doon jariñ lo xamne day ñeel bokk yi ngir waajtaayu tayu magaluk Abdou Lahad gi nu dëgmal nu tok nak ak sëriñ Cheikh Ibrahima si mi nga xamne mo wara ubbi kaddu gi su noppé murtala si mom sëriñ habibur rasul si dana ci jël kaddu bu noppé itam serigne Fallou si mom serigne Modou khadisi dana ci jël kaddu bu noppé serigne Modou Mbacké si mom serigne Moustapha si moy tej jotaay bi kon dañuy ak serigne Cheikh Ibrahima si mi nga xamné moy doomi serigne Adama si mom serigne Modou khadisi mu ubbil nu jotaay bi nu dora ñew nak ci bokk yi ci top inshallah allah. jasilan Diganti ci yeen nak diganti serigne modou khadisi ak serigne malik Bassine ak serigne Abdoul Ahad mooy diggante sëriñ moor Khady Sy ak Serigne Malick Bassine ak Serigne Touba ndax Serigne Abdoul Ahad day Serigne Touba di doomi Serigne Touba di taalib yëpp Serigne Touba nag boo xam ne bii moom muridun saadixun buñ ko dee wax sëriñ Abdoul Ahad la mu jamonowanteeg nag doomi sëñ Mor Khady Sy ak Serigne Malick Bassine yoo xam ne yi dañoo naanoon ci seen ñaari baay yooyee ba man di ci ak taalube ak ci bëgg sëñ Touba biñ jamonaanteeg ñoom nag sëñ Abdou kenn ku ci nekk fekk na la ci bëgg sëñ tubaaga ak doyloo sëñ tubaaga ak gëm sëñ tubaaga mu jëflante caag yow jëflante boo xam ne bii jéggi na dayoo kenn ku ci nekk sa digganteeg sëñ Abdou Lahad ci ci ci ci ci ci waar woowu suñ ko doon wax du xaj ci jant waaye gannaaw ñenn fi ñoo xam ne ñi am na ci ay jataay ay mawaqif yoo xam ne yi fekkee nañu ko loola rek wax ko dana doy sëkk mm, témoignage sëriñ Abdul Ahad liggéeyloo na kër sëñ Mor Khary kër sëñ Malick Bassine ci taalibe gi ci murit gi ci anam yu bëree bëri muy ci alquran muy ci liggéeyu xereñ néegi néegi ya nga xam ne xammeewoon nañ ko sëñ Mor ak sëñ Malick muy néegi néegi né néegi néeg yi nga xam ne moom lañ daa def ci Touba Belel ak ci Touba fii ak ci feneen taxoon na Serigne Abdoulaye daa leen liggéeyloo ay néeg waaye néeg boobu rek suñ ko daa liggéey ñi nga xam ne ñooy suñu wayjur yi ñun ñi te nampoon ci sëñ moo rek sëñ Malick ak taalibe ba ba mandi suñ ko doon liggéey ànd ak seen taalibe jataay yooyu dafa doon jataay yoo xam ne yu neexoon Serigne Abdoul Ahad la da daa bàyyi ko ca fam nekk ñëw fekk leen fañ nekk ak seen taalib yi di liggéey mu toog fa bu ko defee nag sëñ bi lu ne di fa xew nag lu ne di fa xew lu ne di fa xew ci ci ci ci ci ci jëfini murit te loola nag doxoon loo xam ne li di ñor sëriñ Abdul Ahad la ndax ni ma la ko waxee rek sëriñ Abdul Ahad amul sikki sàkk ci ne mooy suñ tubaa waaye nag ku bëggee suñu Abdul Ahad ni suñ tubaa du ma wax ne amul de waaye du bari de ku doyloo suñ tubaa ni suñ Abdul Ahad du ma wax ne amut de waaye booy lim du bari de ku safoo Serigne Touba ni Serigne Abdoul Ahad du ma wax ne amut de waaye soo ko dee wut doo bari le de liggéeyal Serigne Touba ni Serigne Abdoul Ahad du ma wax ne amut de waaye boo koy wutit doo bari le loolu loolu daal moom lay ubbee waxtaan wi jox Serigne Mourtada si mu mu mu mu sof ci bu noppee keneen sof ci. bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki juri bokki taalib yi ngi nuyoo ci turu sëñ Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi fegoog rakam sëriñ Modou Mbacke si di jotal nuyoo bi nag Cheikh Abdoulahat Ka ak Cheikh Abdoulahat Jaxate ngir tànk yi ñu jóg di xañtu lu baax ba ñëw ci kër gi nga xam ne lu baax fi la dëkk loolu noo leen ci nuyu baax di leen ci siyaare di nuyu kilifa gu màgg itam Cheikh Sidi moom Cheikh Abdou Lahad yàlla na fi yàlla yàggal te wéral ko moom mi nga xam ne bi ngeen xalaatee xalaat yu mel nii ci màggal gi nangu na cee ànd ak yéen te loolu di wane Sëñ Abdou rek loolu it mu ànd ceeg yéen loolu lu am solo la donc koy ñaan mu yàgg fi te wér mbooleeg ña ngeen ko seqal nag ca jataay ba nga xam ne yéen a ko seq ñee ngi jëm fii ñee jëm fa ca des ñooñu bàyyiwuñ ca kenn ñu ngi lépp ñu ngi sant ñooñu ñëpp di leen nuyu di ñaanal Cheikh Mountakha na ko fi yàlla ko di nuyu nag njabootu sëñ Mor ak sëñ Malick gi nga xam ne ay rakk lañ ñen ñi di ay jarbaat ñu daje ci taay bi ñen di ay taalibe ak soxna yi nga xam ne dañoo fekk si jotaay bi te fu ñu tuddee góor tudd fa jigéen ñu tax ñoom itam ñoo fekk si jotaay bi ngir lu baax moom góor ak jigéen la ci yàlla yemale ñoo itam ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu suñu kilifa gi ne ci jotaay bi nag muy soxna Nafi mi nga xam ne waajur la ci nun te nekk ci jotaay bi ñoo ngi koy nuyu baax te di ko siyaare sëñ Abdou Lahad li ngeen wax nag lu yombut ndax sëñ Cheikh tàmbali na wax ji waaye lu jafe la wax sëñ Abdou Lahad bu fekkee ne bëgg nga ko xóotal dana xaw a jafe waaye teewut it nag wax lu baax lu yomb la bu fekkee rek yàllaay tax ngay wax lu baax rek ngay wax kon dana yomb danaa tàmbali rek fi fi sëñ Cheikh daanele ci ni mu wanee jataay yi nga xam ne ñi daan def ak sëñ Abdou Lahad ci këram liggéeyoo di leen ko sant te liggéeyee tàmbali woon ci sëñ Maodo ak sëñ Malick ci sëñ Touba nga xam ne ñoom dañuy dañuy wéyale rek liggéeyu sëñ Touba ba la ñuy wéyale ci ñoom tudd na ay néeg léegi yoo xam ne ñoo ko doon defaral sëñ Abdou Lahad muy loo xam ne loolo sëñ Abdou Lahad réew mépp la ko doon defaloo bari na ay kilifa yu bari sant na leen ko waaye ñoom nag da leen cee baraloon xaas ngir safoo gum leen safoo ndax sëñ Touba moo tax mu fuñ mës a ne ci seen jataay yi mu di fa ñëw di fa toogandoog ñoom xam nga sant la liggéey ba noppi ñëw toog ci liggéeyukaay ba loolu soññee mënu ko gën a rëy ba noppi di wax ak ñoom ñuy wax muy tontu loolu it lum am solo la kon loola yitte la woon joo xam ne yitte gënu koo kawe muy liggéey ba ca Touba Belel ni ko sëñ moo Modou waxee sànq rek lim weeri nit ak ñeent yoo xam ne dafa wax ne njabootu sëñ moo ak sëñ Malick gi biñ taxawee di sant. sëñ bi sant leen liggéey bi jaayante ga mu Modou aw këyit la indi woo xam ne dañ koo bind ci loxo sëñ bi si ko bind muy fanweeri nit ak ñeent ñoo xam ne daf leen wax ne nawet bi jege si na te xam nga ne ab baykat ak nawet ni mu jegee ñu sant la liggéey boo xam ne booy tàmbali muy taw mu ne nañ ja damay ku bëgg a bokk léegi da ngay jaayante ne féeg liggéey bi àgg du dem nga xam yow nawet bi am ak nga bàyyi nga yemale su boobaa loolu fanweeri nit fanweeri ak ñeent jaayante woon nañ nekk ci liggéey ba di ay taalibe yoo xam ne ñoo ànd ak ñoom ay sët na ci ay doom na moom mii sax turam a nga ci sëñ Modou Mbacke si xam nga lool li muy firi mooy jaayante ga ma ngi doon jaayante sëñ Touba loolu lañ doon fàttali taalibe yi wala ne yi kat ndeke ku ci bëgg a da ngay jaayante loolu rek war wax jaayante ga da xam nañ ne faaw am ñu ko liggéey waaye da lañ doon fàttali ne nag ñoom li doon fàttali nii mooy li fi indi lii kat jaayante rek la li fi taxaw lépp itam jaayante koy taxawal kon li ñuy lii ñu sant na ak jaayante defar ñu jaayante ci liggéey ba loolu dëkkut benn yoon sëñ Abdou itam li tax ceen mënuñu koo fay amul ci ñoom mag ñi kenn ku ci ne dana la xëy suba teel goo xam ne du la fek sax nga jóg mu taal otoom ñëw fekk li ci seen néeg doo defagun dara mu ne faax toog nga waxtaan ak moom ci la ngeen wax da waxtaane mu delluwaat loolu yombutoon ci ku toll ni xalif général des te loolu mag ñi fi nekkoon ñëpp kenn ku ci ne xëy si na la bis boo xam ne suba teel la lay xëy nga xam ne du la fekkoon sax nga def sa dara bañ nga nekk fay waaje ko defi nga moo tax da daan xëy si lim soxla itam li ngeen waxtaanee sëñ Touba ak lim bëgg a def waxtaan kook yow nga wax ca la nga xam lépp mu denc loolu yóbbu loolu am na lu muy waral mooy diisoo fi jamono toll loolu diisoo la doon wane moo tax diisoo daana wax ne su ma jumee rek ñu bari cuub loolu taxoon ni mu mel ni mu mel loolu waxtaan ca la bokk te waxtaan woo seen mooy indi jàmm lu aw ay réy réy waxtaan koy indil jàmm kon moom fexoon na ba jàmm ji ngeen ji ngeen dugal ci xew-xew bu moo ko doon incarné ndax da doon dox ndax jàmm dafa laaj dox ak wax waaye du toog rek moom da daan dem ak ñëw ngir jàmm maanaam kenn ku ci ne li nga war a xam mu wax la ko li mu li nga xam itam nga wax ko ko mu yóbbaale loolu nag da koo seqoon ak waa maa ngi fàttaliku rek am na ñuy nettali ne ne pour wan la suñu moom rek cofeel geeg fonk bëgg gi bi mu yii ñuy aaye ci dëkk bi rek te ñuy wër dafa wax ne fii bu ñu fi ñëw loolu suñu soxla si moo nekk ci kër gi waaye daf na ci yéen moom bu ñu fa dem ndax du fa lañ fay seet li ñu seet nekkul ci yéen loolu ab soññe la ci ku sant si ku ne ab soññe la ci yow te loolu yëg-yëg la ndax dëkk bi yaatu na waaye mu tànn suñu quartier bii tànn kër gi wax ne foofa bu fa kenn dem ndax lañuy ñuy tere du fa nekk loolu nag ab soññe la ci ñun loolu itam ànd la goo xam ne ñun ñii fi des di ay ta ay doom aki sët ak ay ak i jarbaat soññ la de war nañ cee gën a dëgëraat ba lool a gën a sax ci suñu digganteek njabootu seen blaat gi loolu itam dana ma delloo siwaat ci ne Sëñ du ku amoon yëg-yëg la ci yoon wi ku fexewoon ba yoon wi tam na tekk la ndax xam nga lu tax mooy du dandirlu dara ka gën a ndaw su waxee lu dul yoon day jóg wax moom fa saase rek loola jeex takk dawul bàyyi dara mu jëm suba fi nga ko waxee la koy dindi rek loola ñu fàtte ko mu nekkaat ci yeneen yoon moo taxoon réew mi nii mu doon doxee dëkk bi doon doon doxee moo doon doxee noonu loolu nag taxawaayam la ak bëggam sëñ Tuubaa ak xam ne yoon wi na bi ñu ko joxee xilaafa yi ba mu ko yore nam doon doxale bi sëñ Abdoulaye ñëw da nga def ne Sidna Omar muy taxaw rek la ndax noon rek la yore woon yoon wi du nangu dara yàqu waaye dina du nangu dara lompañit ndax fenn fu ne bu fa dara xewee dana jël àllam def ko fa lam ci war a def lépp mu def ko su fa leneen amoon itam lu lu méngoowutal waraam itam dana leen teg leen ci aw yoon loolu moom daaw ko bàyyil daaw ko dencal kenn ku mën a doon doo magaale ba doonee ko kilifa doo ko ndaale ba doon ko gone kenn ku ci ne li la war ci woon soo ci wàññee boo ci wàccee benn yoon lu mu néew nii rek dana la dellu siwaat moo taxoon yoon ne woon teg dara mënta dem léeg nga dégg sax ku jamono daan bu fi seen bilaat nekkee faaw nga dégg nit di ko wax lu ko waral mooy dafa fexe bari yoon wi mu téye ko ci loxoom di ci def di dindi di ci def di dindi amul benn nit boo xam ne mën ngaa am sañ-sañu def dara te seen bilaat yëgu ko mën a doon ba ci président Abdou Abdou djoumi sax ku fa masaan dem di kilifa sax faaw mu jeug la ba noppi nga doog a dem mba audience batou dial lu ko waral moy bañ nga wax loo wërta wax wala nga jëf-jëf joo wërta jëf muy répété ko ci mom motax dafa yoron yoon yoon yoon wu dëgër la ko yoré woon bo xamné ne mus ci sik yalla nako yalla fayal lol nak ay taxaway la yo xamné nit ñi war nañ ci defaat am jang ngir xamné ne yoon yi mënta dox mukk lu ñu tënku ci kilifteef parce que li fek rek newuñu ci kilifteef rek yoon yi mënta dem yoon wi dañoo war a nekk ci kilifteefu ron ki fi nekkal sëñ Touba moo taxoon moom da leen dawul bàyyi ci dara ku yëngu rek mu téye la ma waxoon ne yat wi moom jaan nag sànqalee na la ci yemale yat wi moom ku yëngu te yënguwut yoon rek mu dóor lay tam wi looy fexe war na ba loolu sax dàkk ci dëkk bi ba dëkk bi mel nii mu mel kon loolu war ñu ngi ñaan yàlla yokk leeram e ñaan sëñ Sidi itam yàlla yàggal ko fi noo ngi sant bu baax di wax ne Saalum mboolem jaww ji moo seen maa bis bii ngeen ñëw tey ji bisu mbégte la ci ñoom bisu fàttaliku la ci ñoom ndax fu ñu mën a nekk danañ ko seetaan ngir xam ne nekkee kat lii seen waajur yeeg seen maam yi seqoon ak sëñ Tuubaa waaye li seen baay yi gënoon a seq ak sëñ Tuubaa tolloo nag moom jamono nekk ñoom fàttewuñ ko ndax ñi yor yëf yi kat seen xel nekk na ci nekk am na kër goo xam ne ku fa dem jëlee fa dara lum néew néew donte woon jub na wala jubutit dana ci am benn nit bu ko dégg moo am ci njariñ njariñ loolu na ko yàlla saxal noo ngi ñaanal ñëpp nu fekk magal gi te bu ñëw gëna neex ci mbolé magal yi ci barké Sëñ Tuubaa jëre gën jëf. di yëkëti ay kàddu itam ci kilifteefu eh, Serigne mohammed murtada si mi xamni moy khalifa mooy Serigne si te yalla def muy kilifa eh, waa yi tay ji ci kaw suuf di ci tofal doomi taxam ji muy Serigne Mor gasaan mi nga xam ne tey mooy xalifa euh, Serigne Mor Xadisi kon buñ nuyoo ñaari kilifa yooyu dañuy jaarale nuyoo bi nag ci sun ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog toogal leen fi muy Serigne Cheikh Ibrahima si ak Serigne Mouhamadou Mbacke si ak seen rakk yi nga xam ne ñoo fi teew ak doomi bàjjan yeeg ñoom ñëpp ñu ngi leen fiy gis di am yéene rek. fàttali eh, kii waxtaane lu jëm ci diggante Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak kër gi buñ tuddee kër gi nag ñu bari maanaam buñ déggee kër gi nag ndax baatu kër gi dafa bari waaye mën naa wax kër gi wala ñu wax ne kër Serigne Mor Khady si wala ak kër Serigne Malick Bassine si diggante Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag ak kër gi day diggante bu yàgg bu yaatu boo xam ne ci baña a guddal malis na ko tàmbalee ci digganteem suñ ñaari gaa yu baax yooyee mooy Serigne Mor Khady si ak Serigne Malick Bassine si ndax mosoon naa wax sëñ Saalix Mbàkke ne ko li ñuy wax buun boo ko defee sëñ Touba dangay dem Bambuk moo tax sëñ Saalix daana dem Bambuk lu bari wax na ne dem na fa ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar buun mooy koo xam ne kii dafa gëj a jëfandikoo eh, ndawal mooy buun buun ni muy ni muy yàpp nag. mu mu ne boo buunee sëñ Tuubaa dem Bambug sëñ Tuubaa ju dara koo jut boo demee Bambug da nga ko fekk sëñ Mor ak sëñ Malick boobu si jamono boobee la fa Cheikh Abdoul daan dem ba waxoon ko sëñ Saliou Mbacké sëñ Saliou dem na fa fukki yoon ak juróom ñaar sëñ Fallou Mbacké dem na fa ñaar fukki yoon ak juróom te ginnaaw bu se bu ba sëñ Malick Ba sin si wàccee ba ñaari sëñ mo sëñ Modou Fati ne fi ak sëñ sëñ sëñ sëñ Adama si ñu fekk ko mm, euh, ndindi booba la len ko wa wax mu ti benn loxo bi moom teg ci sëñ sëñ Adama fo benn loxo bi teg ci sëñ Mourou Fati daane ko ñaar ñooñu rek ak kenn kooku rek ñu bokk wéy loolu kon mooy loo xam ne ci jamono boobu nag la fa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan tàmbali di fa dem ci nekkuk Serigne Mor Khady si ak nekkuk Serigne Malick Bassine si moo doomi Serigne Touba yëpp ñu bëgg a yëg la yit ne ku dul Cheikh Mouhamadul Moustapha rek tey doomi Serigne Touba. fekke nga sëriñ Mor Khady si ak sëriñ Malick Bassine si bambu ay yoon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mii ñuy bëgg a wax am na fa juróom-benn yoo xam ne am na si yoon boo xam ne nekk na ko biir bambuk am na si yoon boo xam ne bii sëñ Modou si moom ko nettali ñu bëgg a wax it ne xaqiiqun xalayja an la aqula alallaahi illa al xaq képp kuy nettali lu mu fekkiwut yaar moo ko mën a jox ku ko fekkee nettali ko wala ñu bind ko mu jàng ko yaar yooyu yëpp dal ma ci bu dee sëñ dund naa moom yàlla def na taw fii na ma dund naa ci ndax science daan na ma ci yónni waaw buun sëñ bi bi ko Cheikh Abdoulaye Mbacke defee dafa fekki Serigne Malick Bassine ci Bambuk sëñ Modou si moo ko nettali ne ko damaa bëgg ku ma waxtaanal ca sunu waaju baax joojee waxtaan wa sax jotu la yàgg sëñ Modou si mu ne sëñ Malick sëñ si yónni woo na sëñ Aliou si sëñ Aliou ba mu demee bañ la ne si mbir si mu ne seel yi dafa jàpp sama loxo bi na ma nañ dem doom ndax fee ñu jëm danga fa jëlee njariñ bañ demee ba yegg ci néeg bi ba sim ali yu nuyoo mu ne sëñ Abdul Ahad mii de daa bëgg ku ko waxtaanal ci suñ waaju baax ja fekk ñi ngi jàng xasida sëñ moo di si mu ne sëñ bi daal ne ñiy jàng xasida nañ dégloo ndax waxtaane Serigne Touba yi moo ëpp doole ci man ci fii ma toll ci njàngum xasida mi ndax loolu day faat ñu ñu ñu dégloo sëñ sëñ sëñ mu Aliou daa ne ah dañuy sëñ la daa bëgg waxtaan suñu waa ju baax ji suñu suñu suñu Aliou mu ne suñu suñu suñu Modou si mu ne suñu Aliou daa ne mbaa du ngeen mer ñu ne ko ah mu naa ah, bu ñu mer rek jàmm la de waaw nee na fi ci tamxiit bi bim ne sama waaja ak la ma xam ca sama waaja ak sama waaja ma xam ak la ma xam ca moom. su Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam teewoon ma waxtaanee ko ci kanamam mu seen daana ndax sama waa jama xam amul doom ndax doom day nuru baay ba te kenn nuru ko toll ni ci dee deew we amul taalibi ndax taalibi day mën a roy sëriñam te kenn mënu ko roy ci lu toll ni dee deew we ci tam boobu yi nee na ci la si maari baasin tëbee taxaw ci kaw sàkkit bi suñu sàkkit bi di dox bi mu génnee fekk bàjjen astu si muslim di si moom lañ def ci kees gi mu war a mu war a li ñu a togg mu jëm ci kilifa gi moo ko doon togg moom it ñu boole ko menn ponkal bi bi sëñ bi génnee dox ci suñu sàkkee bi nag jëli bi jëli bi yóbbaale murid yi bi mu yóbbaale nag soxna si moom ki mu da ko da koo da koo sëq rek moom it sànni ko ci ginnaaw kii ba gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw <laughs> gannaaw sàkkee ba kooku soxna Astu si doomi sëñ Mor Xadi si la moo jur sëñ Abdou si ak soxna Faat Astu si ak sëñ Malick si soxna soxna Faat Astu moo jur sëñ Abo mii ñuy waxtaane ñu toogal ci sëñ Abdou Ahad ak kër gi timit sëñ Mahamadan nee na ma benn bis sëñ Abdou leen yéen de màggalu Tuubaa gi xam nga buñ màggalaan ba noppi dañuy dañuy dajale addiya yi lañ ci jublu woon mooy ñi nga xam ne mënuñoo xaar mënuñoo dem ci sëñ bi buñ dajalee addiya yi jox ko kilifa yi bu buñ màggale ba noppi ñu yóbbu ko bi ñu yóbbu bi sëñ nee na nag yéen mën ngeen a toog maa leen di yewwisil sama bopp sëñ Mahamadan si doom sëñ Mor Khadija moom ko nettali te lii fekkee na ko mune ne sëñ ne leen màggal gu mag gi di yewi ci sama bop loolu kon eh, jam jiñ doon wax eh, ak gi feñ na ci en tant que di murid nga magal gu mag gi nga mën nga dag yitt yep am ci ño dem yewi jël len sen bop neena bis bi len jox mu xat benen bis bu ne mu xeyna jalañ ci keur eh, ci mourid Fatick gi baw ci mourid Fatick mo fi nek di khalifa magon ci keur gi seigne Mahamadan mu mune bisimilah nuyoo lam ci wax gën jox Euh, tawfiq diggante kër gi ak moom ndax nee na ginnaaw bu Serigne Touba ginnaaw bu doomi Serigne Touba yi wéyee yéen laa ci teg ci wétalikoo kaana dalika fil kitaabi mastura maanaam lépp loo xam ne nag dafa dafa dafa dafa am nag noonu nam amee rek lañ koy waxee yàlla na def nag mu neex waa ji wala mu mu ñàkk neex waaye kaana dalika fil kitaabi mastura ndax suñ diggante suñ borom moo tax may wax yii may wax bi siyaasa nee na ma benn nee benn bis dafa jub seeblaat ci belal bi ko jubee mu toog ci euh, penc mi seeblaat siyaasa nee na bi ma ko nuyoo ma ne ko murid yi ñoom yónni ci yow daan ne ko maay làmmiñu murid yi ci yow seeblaat ne ko luñ wax fekk mi ngi toog ci siis bi mu ne seeblaat siyaasa ne ko nit ñëpp dañoo jékki dañoo jékki mu ne nit ñëpp dañoo jékki dañoo toog te bëgg ngeen jékki te muy njëkkee lépp yàqu sëñ bi daal ne bëri jox ko loxo gësam ko ba mu dëgër mu ne ko saa saa na sa dal daal di jóg daal di daal di daal fatu teel jóge ba fatu nee na itam ci seen diggante ak kër gi ba tey Seyblad 1977 dafa woo magi si xéen yi Touba Belel ci kër si ba ñëwee ba mu wéetee ñoom mu ne leen damaa amoon yéene liggéeyal Serigne Touba waye dafa am lu ci laxasu bobu serigne Adama si mo mag ci doomi serigne Mor khadisi serigne Mor Fatim mag ci doomi serigne malik bassin si bobu serigne sëriñ serigne Adama mo mag ñep serigne Adama si moko tontu ndax bobu ñom buñ toge toogee kilifa gu mag lañu diglu serigne déglu Adama ba ba sëriñ Abdoulaye man de dama amone yene liggeyal serigne Touba waye dafa am lu ci laxasu serigne Adama si moko tontu neko de mo fenn jonal sa la sama bañ ca jotaay ba delluwaat ci kër si asa si gam leen daloon ci néeg ba sa boobu sëñ Maxtaar Xadi Si moo leen moo nekkoon moo sëxoon si ñoom moo leen daan toppatoo ba mag ñi fatu mu door a dem ba fajaree mu ñëw ubbi bi ñu ba ba fatu nag ba ba sëñ Maxtaar Xadi Si ñëw eh, ubbi bunt bi ñëwaat di di xool si sëñ bi bi mu ñëwee si Adama bi mu bi dem na bi mu tuddee yàlla moo yee kilifa ya fa woon bi mu ne laa ilaha illallah ndax yëg na sëñ bi dem na sëñ Adama si. foofee mu ko waxee woon ca sëñ laat ca Tuubaa Belel fa la faatoo wëpput deful dara ñim nekkal tëdd ci benn néeg bi it kenn yëgu ne faatu na ndax de ko ne demoo fenn jox naa sama rugi addiya loolu 1977 la woon sëñ Mourou Khady si baf nga wajee ko nag mayit jox naa sama rugi ba foo fi soxlaa foo ko fi rek loolu kon mooy ak muri mun la weesu joxe sa bopp joxe sa ruux waaye la si gën a yéeme waat mooy ruugu mën a wuutu ruug sëñ gi ba nga xam ne ko joxee mu am daraja ju toll ni mën a ruu gi doomu bu demee gee mën a toog boobu kon ruu googu ruu am doole ci diggam ak boromam loolu kon mooy ay séq-séq yoo xam ne kenn xamul dayo bi ñu demee bu dee ci diggante bi mag ñi mille neuf cent quatre ci lim ñim nga xam ne ñu la ñu yaatoo di liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci yoonam bi yëpp waaye di ko liggéeyal ci lislaam waaye di ko liggéeyal ci mboolem réew mi ndax sëñ Laat la waxoon ne moo ko fi bàyyi muy wattu ak sàmm ak yéwénal lu ci nekk sédd na ci waa si yéen bañ jàpp ne ñoom ñoo ko moom te dañ naan wax ne maa ko junne day ñur ak ndof waaye nag wàññiwul dara ci benn mille neuf cent quatre-vingt-cinq tolloog tolloog watasin mille trois cent mille quatre cent six ci gàddaay gi dëppoog mille neuf cent quatre-vingt-cinq ñetti forage ci menn at Cheikh Abdoul Ahad Mbacke digal na Abdou Diouf mu defal ko waa waa Sihin yi Bambuk loolu kon ku nekk xam na yëggutal loolu nga xam ne moom la yëg benn bi mu mu mu ubbi ko mu def ko daaru mu def ko daaru xalimi ndaam Bambuk benn benn forage bu foofu la ko defloo seen laat beneen bi mu defloo ko ko daaru salaam benn bi mu defloo ko ko Manna yetti forage yooyu yëpp ci benn benn at la seen laat ñu defal ko sun kilifa yu baax yooyee ba tey jii forage ya ña nga fa. muy jëflante boo xam ne bii bu yaatu la boo ci loolu doyu ko waaye ci 1985 boobu tamit ci la liiñee Daaru Salaam Bambuk Daaru Salaam Bambuk booba Serigne Makhtar Khadisy moo nekk kalifa Serigne Mor Khadisy waaye ci at moomu ci jëmmi at ci la Cheikh Abdoulaye Mbacke liiñee Daaru Salaam Bambuk loolu kon taxawaay la boo xam ne bii day cër bu rëy boo xam ne am nañ ko ci digganteem ak ak kilifa yu baax yooyu. waye yemul ci même at momi ci la ubilu jumaay daru salam bambu ji lay xamal ne al muridu man la yamliku sayun wala yamliku sayy dañ ko mën a ci diggante si abdou Ahad Mbàkke ak sun ga yu bax yoyé ndax daru salam bambu jumaay ji dafa am dat buñ ko japp war ko ubbi jumaay ñu ko 1989 date boobu buñ ko waré ubbi nak sëñ dal di yebal sëñ asasi ak sëriñ Cheikh Jaxate ak ak ñeneen li leen xamal ak murit fofu da cee feñ ndax mana ñom japp nañ japp nañ julli juma ji ci abdat ba kéro ba ba mu jàmp yoni délégation bo wi ma la doon wax. sëñ blad dafa def fofu lu kiimaane loo xam ne ñun fi lañu fekk yalla dogal juma ji biñ ko tabaxé ba nopi dañu ñew fi suñ kilifi yi yëgal ko sëñ blad wax ne bis sàngam buñ càggee dañ ko ubbi diggante boobu nag communiqué kii bari lool ci ubbi gi mooy sabab ba ba mel ni àdduna mu ngi cey bëgg a dugg mu woolu say asaas yi fii ci ci këram gii mu fekk ko belal mu ne ko da nga ne siwu dem bambuk boole koog sëñ baara baara belal ngoog oto ba son son astuga son kii joxoon seen blaat oto boobu moo leen yóbbu mooy sa benn 504 mu leen bu ngeen demee neel si maxtaar xëri jummi ji jumaa ji nañ ko ubbi suba booba jumaa ca topp sëñ Matar sëñ Asa bi mu jógee fii ànd ak sëñ Baara moomu ba mu demee fekk sëñ Asa dem ca foofu mu doon yóbbu ndongom loolu sëñ Matar xëri ci lañ yónnee woolu ko mu ñëw sëñ sëñ Asa ci boppam baax gi mu baax ak murite gi euh, bañ ubbee jumaa ji ba noppi daf ne délégation bii nga xam ne sëñ Abdoulaye Mbacké moo leen yebaloon oto Sëñ Abdou Lahad bi nekk fii ak sëñ Baara mii nga xam ne moom Sëñ Abdou Lahad ñoo takkoo di benn nañ leen daal di yeewu ñoom ñu dem woo ma man mii ba ma ñëw mu ne ma ànd soo oto ma ne ko mi ngi fi mu ne ma yow man ngaa toog ñu def fi ñetti fan ba nos jumaa ji moom àgg ba bu ma àggee Touba xam lu may wax Sëñ Abdou Lahad moom mooy la nga xam ne mooy ci sànq film waaw bu ko defee ci ci seen nangu googu ñu ci indi par kenn kenn ngir ngir ngir ngir dëggalee ko ko ba ci sëñ Modou Khady si moomu ba ci sëñ Modou Khady si am na ci koo xam ne bi ko ko Sëñ Blaat di tuddal booba booba jant bi bu fenkeet moom soriwut dafa génn yor kurusam Sëñ Blaat ne jalañ muy seexu naam si si mi ngi fi yor daara alxuraan di jàngale mi ngi fi seexu naam si Mor Khary bi mu génnee eh, di doxantu sëñ Maaligum ne jalañ fekk fa sëñ Maaligum si Adama si seexu ma Assa Bousso mu sëñ Daam Bousso mu Elimaane Njaareem bi sëñ Blaat yegsee fekk fa sëñ Malick sëñ sëñ sëñ Adama si mu dalal ko dem jëli liir ba andil ko sëñ Blaat sëñ Blaat tudd ko mu delloo ko génn nag di wëri sëñ Modou Xëri ba mu ne ba tase moom mu ne ko ah sëñ bi sëñ Blaat ñëw na sa kër tudd na sa doom ja mu ne ko yow daal yaa ma yeb rek la nga seen ñaar yi nga boole yëpp rek <laughs> sëñ Blaat ñëw na sa kër tudd na sa doom ja loolu lañ koy waxee nit <laughs> waaw mu amaat mu amaat beneen boo xam ne ngir li sëñ bi wax ne naka ngay nekkee murit ba noppi di bëgg dara mu amaat mu amaat rakk moom seexu naa moom i muy baali si sëñ blaat ñu ko mu ne dana ñëw léegi ñu nekk fa ba tàkkusaan ba tàkkusaan ba gannaaw tàkkusaan kii bi mu koy tudd jant bu fenkee tuuti la kee gannaaw tàkkusaan la ko tudd te terewul ñu xaar ko tey li si gën a yéeme keroog ba ba bokkam dem ñenn ñenn ñenn ñenn ñaan ñu ngi dem di waaye ñu suñu wàllu moom maam jaara busu lañ ko tuddee bisimilah ñëwee tuddee ko maam jaara busu yooyu moom ay jëflante yu yaatu la yoo xam diggante kër seen blaat ak kër Thier moom xawma seen seen seen Thier liggéey bu rafet bii nga xam ne moo leen fi yebal xawma liggéey bu ko gën a rafet mas ngeen def liggéey yu rafet yu ne waaye bii moom dafa bokk ci liggéey yi gën a rafet kon nag ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ci sant di leen ci jaajëfal. tabaarakallaa jërë ngeen jëf mbokk yi. Euh, di am mbégte bu baax rek ci li ñu fi jotté dégg ci ay cadeau yu am solo yo xamné ne yu jàngale la cadeau yu soññee la ñël képp ku bëgg ku bëgg sëk dëgër ku bëgg roy ci mag ñu baax ña ci doxinu ak taalube feeñ na fi bu kabah baax ci digënté Serigne Abdou Hat ak bokki sihen yi nga xamné ne seqoon naa ak ñoom ak murit ak ñom ak taalube seq ak ñom koléré gu dëgër gu am am solo te bokk yi net liko fi tambalé ko ci Serigne Cheikh Ibrahima si ma moom Adama si mom Serigne Mourou Khadisi si itam Serigne Mourtala si moom sëñ Habibou Rasoul moom sëñ Malick Bassine si waaye itam nag sëñ Fallou si mii nga xam ne moo mujja wax moom sëñ Modou Khady si moom sëriñ Malick Bassine si kon bokk yi muy kàddu solo yoo xam ne moom la ñu leen taatanooloon fii waaye nag bala noo eh, jàll ñu wax leen noo ngi ànd yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi sëriñ Abdoul Ahad Moukhtar sëriñ Abdoul Ahad Bousso moom sëñ Moutalib sëñ Abdoul Ahad Diakhaté sëñ Abdoul Ahad Bousso moom sëñ Thierno ak bokk yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi te nekk ci yeneenu liggéey waaye nag dañuy jox kon sëriñ Modou Mbacké si mu tejal nu jotaay bi ci kaddu yu mujj yi nga xamne ne lañuy jox inshallah ci legge ñew ngeen kër go xamne ne len ko kenn kudul dul wa ko kër Touba ak njabotam ngeen joge ci ku tedd ko xamne ne itam xam nañ ko bu baax mëna wax ci mom lu bari muy sëñ Sidi Mbacké di jambar jo xamne ne musta genn ëttub sëriñ Touba. ndax ñaar ñi ko seq muy Cheikh Abdoul ak sëñ Saliou Mbacké kenn ku nekk rek doy na sëkk waaye ñaar ko seq kenn ku nekk def ci moom ba mu fees dell moo tax yàlla dogal na bim toogee jataay booba kenn ci nun ku nekk mën na koo seede ci taxawaayam digganteem ak Serigne Touba Serigne Sidi as gor la ab jullit la ab taalibe Cheikh Ahmad Bamba la nangoo liggéey lool te téye aw lammiñam téye ab tànkam te Sëñ Tuubaa boolewu koog dara tey jëfam li ci ëpp da koy def ne am ceebo gas ko ba mu xóot mu suul ko waaye yàlla nañ fekkee rek meññeent ba kuy naw njabootuk Sëñ Tuubaa da ko ñaw da ko naw bu baax a baax loolu ñu ngi koy seere rek te yàlla tax tax xam guñ xam dara ci moom moo tax ñuy waxee noonu ndax Daaru Salaam gii ñuy wax fekk nañu fa ba tey yoonu murit it defe naa kër yu bari dem na fa laata muy toog xam na lu bari ci sëñ Touba doog a toog ñi ko war a defar it defar nañ ko di as gor soo xam ne lu liggéey jox na ko sëñ Touba la ca des mu seq kook ay nawleem wala ak i bokkam wala ña ko yelloo mu jox leen ko yàlla ko fi yàlla bàyyi te ko dooleel ko euh, délégation bi mu fi fii ngeen dëkk. ndax suñ kër gi mooy seen kër gi rek di génn kër seen way jur yi ak seen maam yi mooy suñu way jur yi di seen maam yi rek ñoo yéen bokk yeen jamono Cheikh Abdou Lahad wax ci jafewut ndax boo doon wax ay jëf muy tuddee réalisation ñun ñëpp teg nañ ci suñ bët am na nag lu ci gën a yéeme te man bu man yéem na ma te fekk ma fi mooy boo toogee ñi xam dëkk dëkk tuuba ñi xam dëgg-dëgg Touba dañ lay wax Touba ju njëkk ja Touba gii lu ne na fi lu rek fi la ma fekk Cheikh Abdoulaye yàlla jox ko xam-xam jox ko aw fit jox ko njàmbaar te mu xamoon bu wér ni it mooy Serigne Touba bu wér te nangu woon ko doon ko jëf ci waxtu wu nekk ak ñim seqaloon jamono muy état muy jàmbur muy murid muy ku mën a doon ñëpp xamaloon ne mooy sëñ Touba di ca doxee sañ-sañ kër gi yi ngeen di wax ci yéen diir bu yàgg sëñ Moustapha rek fi nekkoon sëñ Moustapha si képp ak man mii ak ku ñuy wax sëñ Ibra te ak Baye Mor Astuka booba kenn nekk fi ku dul ñun ñi keroog bi nga xam ne seen Abdoulaye def na liggéeyam bu rëy boobu. yónni sëñ Moustapha Bassirou ci xalaatam bu rëy boobu mu nasoon sëñ Moustapha Bassirou war kilifa yi diin yëpp mu wax ne lii damaa bëgg mu dañ Touba booba Touba dama du ñemee wax sax Touba mooy Touba la xewoon Touba boobu ñëw mu ko wax waaye man damaa wax ne booba état ak ñemel ne état ak ñiy noos ñëpp samedi ak dimanche Touba lañ ko daan defee si doy na sëkk ci borom bi xam-xam keroog bi sëñ Abdoulaye toogee ne lii nekk Touba te wuru fee nekk damay taxaw temm mu dañ waaye dindi nag. ñi ma ko séqal nga xam ne ni ma moomee Touba ëllëg war nañ ko woon a moomee noona noona laa koy waxtaanee ñoom woo sëñ Moussa Bassir woo ko ba mu ñëw mu wax ko bëgg bëgg bëggam ba mu daal di wër doomi sëñ Touba yëpp wax leen wax ja ñoom ñëpp it ànd ci ak moom rafetlu ko kenn ku ne daal di signé kayit wa bañ signé kayit wa ba noppi sëñ Ablaye ku xamoon adduna la ni mu xamee sëñ Touba xamee ko yàlla noonu la xamee woon adduna lu masa sa def doo ko corriger ndax ci xam-xam la koy teg doo ko fa baatin ak sañse nag doog caa teg waaye jiit jiit li ci jiitu moom ci xam-xam rek la koy teg mu daal di woote jaarale na kayit bu fa mu a jaar lépp ci gouverneur yaag nga ba ci état ba nga xam ne ñoom yëpp teg nañ seen kër ba nangul ko ko mu woote fi woote bu rëy la ko sababoon man xam naa ko te fi la ma fekk waaye du ma ca jaar ndax la weesoon kenn dutu ko tudd waaye bisu àjjuma la yàlla dogal ba leen wooye ñoom ñëpp ndax seen laat alxuraan la daawut na bu dëgg su koy def ñëpp koy xam du wax ci kaw di wax ci suuf fi la ma fekk mu ne leen dëkkab sëñ Tuubaa bi kat dama ko bëgg a raxas bam mu set wicc su ma koy raxas nag ci seen njaboot ak gii nga xam ne ñooy sët sëñ Tuubaa yi ci laa koy tàmbale teg ci seex yi teg ci taalib yi ak jàmbur bu fi jaar di ñëw bëgg a def lu nakk su lu noonu yooyu ñuy jëfandikoo ci Touba yëpp te dëppwut ak bëgg-bëgg sëñ Touba damaa bëgg mu jëyee ko fi ah état bi nangul ko ko ay rakkam nangul ko ko murid yi mag yi nangul ko ko sëñ bi boobu Touba ni mel ma ne su ko wax laa la wax de maa ngi koy baamuwaat. sëñ Ablaat yàlla jox ko personnalité boo xam ne saxsiyee boo xam ne amul kenn ku muy jàkkaarlool te bu la waxee doo def amoo fit ba moom bu la imposé il faut nga daanu ci suuf loolu la ko yàlla mayoon. mu woote na lii dama bëgg mu takk Touba sëñ Touba ngi nii tëdd dëkk dëkk ñun te lii ñu fi def yàllawu fi sama bakkan bii laa ci gar ku ko defate ak koo mën a kër goo mën a bokk dinaa ko jëflante yow daal di wut ab équipe andi leen fii Mor Seck mii ngi may dégg ci la bokk sëñ Modou Mbacke njeeta mbooloo lañ koo mën a doon boo jaaree ci yoon wi da nga taxaw ñu visité la lépp luñ fekk ci yow ñu yóbbu la tegle la ci yoon boobu ma lay joo fi nag sàndarma ak ñeneen ak ñeneen ñu yóbbu la njaarim peine bi 45 jours lay doon da nga fa ak koo mën a doon moom a gis nañ ko yow da nga dem jaarim tëdd fa tëdd fa fukki ñeent fukki guddi ak juróom yar dëkk bi bañ leen nocc mu teg leen ci yoonu siraatul mustaqim liggéeyal sëñ Tuubaa moom àggoon na fa ci foo xam ne du ma wax ne ñafa àgg bari waaye jàmbaar la ci woon waxtu wu nekk su wootee murid yëpp koy wuy si lépp lu wax ci sëñ Tuubaa dañ koy def ndax da koy jëmee ci sëñ Tuubaa dëkk bi lu sëñ Tuubaa soxla woon def na ko fi yoon yeeg ndox meeg université yokk jumaa jeeg nangam nangam li fi seeb la dafa ko bari waaye bu koy def lu mën a amit day wax sama mbayam daaw kat nangam la wax ko ñëpp dégg ko mi ngi nii ci sama poste naa ko def ci liggéey sëñ lu ma nit naa ko ci boole sëñ Abdoulaye noonu doon doxee loolu mën naa cee wax lu baree bari te yéen ñii kenn ku nekk xam ne ko suñu ndaw ñun sëñ Abdoulaye ku bëgg alxuraan da te jëf ci alxuraan loo xam ne ñun ñëpp ci teg moo tax yàlla fayee na ko alxuraan kere ba sama borom ñëwee coobareem ci biir kaamil lañ ko denc kaamil rek moo ko fa indi woon def ko fa waaye gis nga sama borom li mu ko fayee ca kaamil lañ ko denc alxuraan wër ko am na fi yoon woo xam ne ak ak korite la wala tabaski mu def discours ba noppi bañ ko defee ñi ñëw ña ko arrêté woon arrêtement ba baaxul jëluñ ko lépp booba Clédor Diagne moo fi nekk bi ñëwee ñëmuñ ko ko wax waaye seen la noppam yi moom dëgg rek la ci bëggoon di diglu mu laaj la xew ñu wax ko ko mu ne na ma ko waxee ca ca min barba waxee ko ca mbooloo ma noonu laa ko mokkalaatee na laa ko mën a waxee da ngay xool boobu sañ-sañ ci si digganteeg sa borom noonu la defaatee discours ba bam ne coleet kelo daal ñëw yóbbu ko Ndakaaru korité weer feeñ ne fii ci tuuba wala mu ñàkk feeñ waa Ndakaaru ne dañuy woore ak ña mel ni ñoom ñu wax seen Abdoulaye ne weeru feeñut kon ñun suba dañuy woor mu wax Clédor Diagne ne ko nañ annoncé ne suba ñun murid dañuy woor booba senegal benn rajo fi nekk muy RTS Clédor wax ko ba mu ko ba mu ko bëggee wax nag ñoom kilifaam yi nanguñu woon waaye murid gii ko yàlla def ci moom mu dem rek bëtt rek moom technicien la xam na rajo bi dem ubbi rek daal di koy annoncé ñëpp yi dégg yàlla di koy dàq parce que saasa lañ ko dàq bañ ko dàqee nag mu ñëw fii ci bisu korité bi wax sëñ blad la xew lépp sëñ blad dafa xare ñewon dafa ñaw sëñ blad ku ñaw la bo ko dee amna na ku ko fi tuddu legi ci Seydina Omar waye sëñ blad day jàmbaar dal ku ñaw néew fa di xulo néew fa di wérante xam na ne ak sal yi ëpp ci mur ci Sénégal mur yi lañ te ñoo ëpp xaay ci ñoo dàq dàq joxe bañ jullee ba noppi moo jël nekro bi daal ni ana am Abdou mu ne ko mu ne ko na suñ bàyyee daan def nañ ko def kenn ku nekk am na fi ndaw bu xew-xew amatee na ko santaane ma santaane ko ñëpp santaane ko dana daj Sénégal ak fu war a àgg na fàgg rajo bii nag su fekkee nii la namee demee duutu leen ci dégg sama kàddu daal di nag karaj noppi ñii daanu ñii xalonk ñii jooy mu di ñoom joxo ñëpp sëñ Tuubaa rek lañ bëgg ba sëñ Abdoulaye waxee loolu lañ njëkk def mooy ñoom ñëpp bàyyi rajo Sénégal duutuñ ci tàgge duutuñ ci communiqué lépp lañ ko waxee ñu ba lépp rek mu jeex mujj rajo bi dama dem ba mujj mënatu dafay ay taxeem mujj na dema dem ba mënatu dafay ab courant ministre ba ci bop du tuddu turam faatu na yàlla ko yalla yërëm mo xey ci fi ñew ci semblat tuub jéggulu semblat jéggal len du topante nit ku baax du topante yafi jaaraat fa mu jaar semblat nit la ko xamne ak muritam ak bëgg alquran ak bëgg ñooñ seigne touba ñako ci da bari wu ñun bañ nekké Daaru salam di jang alquran danaan ñew bambuk sun kër imam yoyu am bis bo xamne ma nga ngi fàttaliku ñi ne ci daara ji di jang ni mu ku wax kër bay malik kamara jaar iliman ilimaan kër fàllu kamara dafa xamul dëkk kër gi xam neegi sax xam na sak, ñi ak goor ñi sax ta moom dafa ab sam la won dal bimu ñewé ba ci jang bi fekk ñu ñu jang alxuraan ni kenn ku ne day jël sa jukki xol fa nga tollu jang ba mu neex ku mu jox la doomi seigne touba mi ngi sol mbaxana mu ñuul ab rab yor xaftaan bu ñuul yor kurusuk saytoon ci loxol day jorom bi mu wëree lépp ba jàng ko xool ñëpp dal dugg ci nek siñ siñ daar bi muy si Matar Xëy jëflanteeg ñoom la wala jëflanteek ñoom lépp waxtaan ak sëñ bi ba sëñ bi gunge ko da ngay xool goog sàmm ndax sàmmee noonu mbooloo bu ëllëgee boo toogee ci jotaay bi sëñ Tuubaa ndax da nga am loolu ci jaaxal dara du la jaaxal lépp nga xam te ablaat bi ñëwee noonu la doon bëggee alxuraan noonu la bëggee woon waa alxuraan gannaaw nag da doon dund ak sunuy kilifa Euh, une fois na ngay tudd nit ta ñàkk ci jataay bi euh, dama bi mu nekkee fii ci Touba dafa am loo xam ne Cheikh Abdoul dafa amoon sañ-sañ ci digganteem ak boroomam te sañ-sañ boobu kat ku ko xam da nga nangu ne am na ko ndax am sañ-sañ daal mooy wax loo xam ne sa digganteeg sa borom la te nga wax ci loo xam ne bu subaa ni nga ko waxee tey ci bëccëg bii subaa ci bëccëg da nga ci teg sa bët euh, loolu dama koy coos rek mos ci tuuti dafa xamoon njabootu sëñ Tuubaa gi xamoon taalibi sëñ Tuubaa yi xamoon li sëñ Tuubaa am mu mu peeg ko téye ko ci loxoom liggéey na fi ab téere boo xam ne xaw ma ndax mbooloo mi am na ñu ko fi am wala ñu ko amut ñu fi waaye téere bi moom moo wax ci làmmiñu boppam bi mu ñëwee fii ci sëñ Moustapha Sy di ko indil téere bi daf ko ne liggéey naa ci ñetti téeméer ak ñetti trois ñetti 313 ñi ma koy jox nag du ma ko yónnee du wóolu nit ti jox ko ko mooy mooy ñëw ba ci yow joxal la ko boppam daal dina jëy suñ booba kat daal di koy waxee noonu yéen ñëpp xam ngeen ko foofu laa ci mën a yem baax na dégg ngeen ko dégg nga jox na ci sëñ Moustapha si ba mu ci jógee jaar ko sëñ Modou Kabir Kam yi jox ko ci téere xam-xamam diggante moog yoonu murit ak sañ-sañam xam nga da nga am xam-xam du am sañ-sañ da nga am sañ-sañ it du am xam-xam waye Sëñ blad dafa bolé won yar yëpp dafa amone xam-xam ci digënté mok Sëriñ touba bu wër amone sañ-sañ ci digënté mok Sëriñ touba man da féké naa ndekki lo xamné ne mag ñamatu ñoon ñent wala juróom loolu ku ko ñëmé wax fi tollu ni nii ñi ko ñemee wax bariwut man bokku na ci ndekki xamna xam naa lan la bañ ndekkee ba noppé ak ya ci war yëpp bam génné bam leen di yewi ci mag ñoo na daf leen xaw ma ñenn de waaye yéen ñii di bu ëllëgee bu ñu dem ba toog ci kanam sëñ Tuubaa maay doon seen seere boobu engagement ku ko ñemee jël bu ñu demee ba toog ci kanam sëñ tuuba yéen maay doon seen seere suñ mag ñi nga xam ne ñooy suñ magi ceen yi suñu ablaat ñun mënuñ ko ñàkk fonk wallahi hasim bu doon mel ne màngaan ci àll ba rek ni def suñ bàyyi ak suñ maam yi daañ ko ko ne def suñ bàyyi ñu ngi dëkk jamono boobu ñun ceen lañu saalum la ñu fa yóbbu mooy barke ñoom fii rek lay nekkoon xullee geeg lu ko jegeek yooyu ñenn ñi dëkk silmataar ci kumboof yii soriwut bi maam xataar benn gàddaay dem silmataar ba mu fa nekkee ak sëñ Mor xarit si ak i magam sëñ maay yàgg na fii loolu te demut jaawen gii la nekkoon leen fu yóbboo rek mooy sëñ Tuubaa seexal leen ñu am barke am mbooloo dem fa sañ ci dëkk seen cosaanal ci yéen daanaka loolu la woon ba tey ci njàmbaar ak sëñ Abdu Laat ak fit boo xam ne kuñ ko boolee di la gam-gam léegi seen blaat man damay defee dañ lay nax waaw kon kon nag dañ lay nax dama ci seet daal nag ay ay lu bari waaw ankay murid laa doomi murid laa am fu ma ñëmu tàgg dégg nga keroog bi mi bi muy tontu Senghor damaa damaa damaa bokk ci ñi njëkk ñëw ci tribune ba man sax damaa damaa kii waaye daanaka xawoon na maa jege seen blaat jéegoo xam ne ku sos ci moom rek la yàlla dogal na forage boobu mooy forage bii biñ koy ges ba di ko tijji Senghor bi mu ñëwee ci sëñ Abdoulaye laa ma a gis mu def loolu ci samay at ak sama dégg ci la ko jiitu te gisaatuma ku ko def ba discours yéen noppee ba noppi maa ngi toog sama diggante ak sëñ Abdoulaye day du toll nii fekk sama sëñ bu soo bi mii ndax damaa teel ñëw toog ca banque yi nii ma mel rek laa mos a mel ba may gone it sëñ Abdoulaye ba waxee ba noppi. dafa xëcc mbékatu bi xaaru sax ku ko jox amul protocole daf ko ne dafa jóg ne ko yow ba ma la xamee ba léegi ni mu ko waxee rek laa koy waxee ndax waxoon nañ ko bu yàgg damay nettali rek ngeen baal ma ba ma la xamee ba léegi lépp loo ma ma sa wax ay kàcc la. président de la République maa ngi toog fii boobu moo wax ko léegi ah yéen sax yéen ñemeetu jàq da ngeen a ngi jàq fi mu toll ñemeetu la kenn waaye nooyi leen moo ko laa ko wax. gaa yaa ngi jàq xat ree nañ mu ne ko ba ma la xamee ba léegi lépp loo ma mas ay kàcc la waaye la ñu suñ bàyyi waxoon rek maa ngi toog def leen alxuraan muy ndégub yàlla def la sunnaas Muhammad muy lakk ba lu taxaw ci gannaaw lakk ba di leen woo lànk leen bu leen kuy loola saytaane la lii la lii tontu keroog xanaa waa jot na waa alquran muy néegu yàlla sunnas Muhammad muy lakk ba lu taxaw ci gannaaw làkk ba di woo lànk leen bu leen kuy loola saytaan lii suñ Tuubaa moo ñu ko dénku suñu bàyyi te duñ ci génn mukk nag gis nga mbirum bawkat yooyu ngeen di wax Touba bi mu ñëwee man yoor yoor bi wallahi xasim naa fekke yoor yoor bi bi ñu duggee ci suñu wet gii bay génn maa ngi taxaw di seen bawkat yi nii Cheikh Blade waxoon na ci ñun lu jar nag ñun ñii jamono lu mu yàqu-yàqu suñ taalibe gi buñ ko koj lu jamono yàqu-yàqu sëti sëñ Tuubaa yi buñ leen yab buñ leen woyofal sëñ Mor mii ngeen fi ak sëñ maalik sëñ Tuubaa rek lañ jamono anteel topp ko ba jax ca takk sun baay yëpp njabootu sëñ Tuubaa lañ topp muy ay doomam ñun ñii ak lu mën a xaw sëti sëñ Tuubaa yi lañ fi taseel nañ leen topp te bàyyi leen xel te jiital leen te diglu leen ak ku mu ci mën a doon nag te warumaal bokki bu soobee bi ak ñu mel ni bokki sëñ Tuubaa yooyu loolu kat ndono loo xam ne ñun dañ koo doon te mag ñi bàyyi ñu ko bi xaj yi fii xaj yi ci laay jaar seeb laa lam leen digloon booba buñ faj buñ dugg ci yéen ndax xam naa bu wér ne barab boobu la ñuy tere ñoom nekkuñu ca témoignage boobu nag kuñ ko te seera sa baay booba sëñ moo sëñ maay nuñ fi waaye suñ baay yaa ngi fi seere soo kuñ ko seere war ngaa doon as gor sëñ bi nañ doon ay gor te topp njabootu sëñ Tuubaa gi te bañ leen linkaar man de man de man de man bëgg naa ko def loolu beneen ba ci top bañ jogé ko fi seen blaat ko amun fit la ba ba ñu démé man na ci tudd ay kilifa yo xam ñang ci kasso ba ma tudd ah kon manaa dégg nga ba mu jógee fii di ko dafa wax ki ma andal ne ko sante wu ne dang ko fa fekk ba mu ko sante ci ci kasso ba waaw bi ñu ñu am ko mutla du ngeen ma tontu war nañu am ngor suñ ngor nag yi rek bañam wuté ngi ñi dara nañ ko def bu ñu ko defee li ñu bëgg lépp dañ ko am Cheikh Blaat fan tëdd day alquran wër ko liggéeyal na sëñ Touba lu tax alquran daloo ko séentu ko ganale ko dalal ko waxuma sax sëñ Touba ak yaa ca xew waaye fee mu tëdd day xam na ne tey jii lam def sëñ Touba sëñ Touba fayal na ko ko yéen waa mbokk yi jógee ci sëñ Sidi ñi nga waxaat ci sëñ Sidi sëñ Sidi moom luñ la mën a wax as gor la ab jullit la ab taalibe la ku bëgg sëñ Touba la ak mbudi saadix la lenn loo ko mën a waxal lu sëñ sëñ Sidi liggéey kat nga jaamukatab yàlla nga fonk nga liggéey loo liggéey joxe tooñ nga ko yoonam ne wut ci lu yoonam ne wut nañ ko seet yàlla tax sëñ si di leen ko waaye ma ñaanal ko yàlla ko fi yàlla yàggal te ko te yàgg yàggal fi magam jii di sëriñ Muntaxa Mbàkke noo ànd ñun ñëm nekk bokk fi nekk rek tabaarakallaahu sëriñ Modou Mbacke si ci wax ju am solo ji nga xam ne dolli nga ko fii tabaarakallaahu te mënutoon a ñàkk waaye bala ñuy tàggoog yow dañuy def at mu ne dañuy jël benn tem gunge ko màggal gi ren nag ñu jël thème boo xam ne assalaamu wa tasaamax lañ ko tuddee muy jàmm ak xajoo sa Abdou laxat loo fàttaliku ci nan la daan dunde jàmm jooju waaye jàmm dafa am geneen anam goo xam ne nit ñi seetluwuñ ko te mooy jël say responsabilité ak itam loo war a faj nga faj ko loolu yaakaar naa day jur jàmm léegi yan taxawaay yi mu amoon di jël ay responsabilité ba jàmm am ndax nit ñi bu ñuy tooñante kenn buñ jubadee di tooñante yaakaar naa jàmm am taxawaay bi mu taxaw ba nit ñi jub tege ci yoon am jàmm loolu itam nga dikk ci doo bala ngaa tëj. sëñ ku bëgg jàmm la. waaye jàmmam jooy nag ku am fula la xam nga dañoo bokkatee bokkuñu maa ngi fàttaliku sunu woy jur yi rek danaa tudd sëñ Adama si tudd sëñ Modou Fati jamono bu leen soxlawaan du leen woo ne leen na ngeen ma wuy moo yónni ñetti safooram kenn ka Ibra Ibra Ndiaye Ibra Gueye la tudd Ibra Gaye ak Saanu Ndiaye ak Xaadim Gueye waxtu ne oto yi bees tàq la yoo xam ne ci lañ daan tasaare dundub Poroxaan ak dundub Touba bi ak dundub Njaareem nga xam ne moom moo ko yenoon ci dam ngir bëgg jàmm daaray kaamil sëñ Tuubaa yi fi nekkoon yëpp sëñ Abdou moo ko doon saytul boppam kenn ku ne la war sa digganteeg sa kër sëñ Abdou ko taxawee woon daara ji bis bu yàlla sàkk daañ xam fañ wàccee ak fañ xëyee wala fañ xëyee ak fañ wàccee sëñ Abdou ko bëggoon jàmm waaye ko doonoon jàmbaar la jàmm li ko doon andi mooy waxtaan ak diisoo koo xam ne saa bu la neexee nga ne tëll wax boo bëggee jàmm yi doxoo ci yoon woowa jàmm ku ko bëgg da ngay diisoo sëñ Abdoul dafa ñeme woon diisoo ak waxtaan yemale wu koon ci doomi sëñ Tuubaa rek waaye daana diisoo wàkk sëñ Tuubaa gépp ci lépp lu muy bëgg yëkkati balaa koo yëkkati dana seet mag ñi nga xam ne wóor na ko ne dund nañu ak sëñ Tuubaa santu ñu seen sant woowu waaye dund nañu ak sëñ Tuubaa mu woolu leen ñenn ñi sax mooy taal otoon dem seeti leen wax la bëgg def projet am ñooñu lañ xam ci sëñ Tuubaa lim ñu wax ko ko bu ko yëkkatee ñepp waaw lañuy wax wala ñi ëpp ci mbolo mi waaw lañuy wax moo monsieur lu mos sa yëkëti projet bu mos sa yëkëti réussir nako mu sa fi yëkëti dara mu lal suuf lu mu yëkëti rek yëkëti dal nako cheikh blad bi mi dajale fi milliard genn wal giñ naaj ci tuwi bobu ñi mëna am ah du ma tudd xaalis waaye xaalis amul bobu ñu woti wat ba mu yàgg mu ne mu ne <laughs> moy jambar jàmbaar mu ne nañ ko arrêté lepp matna jamm nak yaradiku du ko fekke lu la neex wax du ko fekkee sañ-sañ yoo xam ne tegoo ko ci digg du ko fekkee jàmm daal ku war a indi jàmm da ngay dox ci yar ak teggin wormaal sam réew wormaal sa dëkk wormaal sa kër ba ci sa néeg bi nga nekk nga wormaal ko loolu kat ku ko def koo mën a doon danga am jàmm ndax oti yii ma la seen blaat yu bees teq la day jëli suñ mag ñi indi leen bis bu yàlla sakk dana togg ab añ indi ko fii ci kër gi ma fekkee ko ku ca mag ñoo daañ ba ci yow ña wuy ji wuy ji ñu wuy ji ñu sédd leen ci saari ko ndax dana doy sëkk loolu du jàmm. jërëjëf jërëjëf sëriñ Modou Mbacké si jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima si jërëjëf sëriñ Mourtala si jërëjëf sëriñ Fallou jërëjëf njabootug seen gépp euh, am nañu mbégte bu baax a baax ñun ñi nga xam ne ñun la sëriñ Sidi Mbacké moom sëriñ Abdou Lahad joxoon liggéey bi te yebaloon nu fii ngir nu taataan jikko ak jëflante yu am solo yi nga xam ne magi ci yéen seqoon nañ ko ak sëriñ Abdou Lahad kon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëliloon fii ci béréb bi di leen fàttali rek ne màggal gi nga xam ne moom la sëriñ Sidi di defal sëriñ Abdou Lahad ànd koog njabootu sëriñ Abdou Lahad gépp ànd koog njabootu sëriñ Tuubaa gi di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sawaal weeru korite waaye ren mu tollook la 14 mai ñu koy yëgal ñëpp rek di sàkku ci mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi lu waay man ci njàngum alxuraan njàngum xasida salaatu ala mu defal ko serigne abdullah te ad yaral ko ko serigne Touba di ci sakku seenub teway fu way mana nek nekk te mën a mu ñew ku munta ñew itam fa nga nek nga dundal ko fa ngir serigne abdullah billit jullit bu ne murit bu ne jëfal na la jëf jo xamne wax deug yalla war nga ko delo njukkal. ay murit lañu yo xamne serigne Touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk wóolu ak gëm ak ragal ak yaakar serigne Touba rek lañu